parce que dafay dagg. allo waaw soxna si. waaw dafay dagg. yaa ngi may dégg. maa ngi dégg bu baax léegi. ma ne man ci presse laa nekk animatrice la mm-hmm. dama bëggoon laa ci suñu yaay jooju toog. ñetti question su ma ci mënee tontu. Mm-hmm. Euh, dama gis fi mu toll nii sénégalais yi ñu ah. bëri dañuy dal sëriñu internet yi parce que mm-hmm. dañ naan dafa bëri ñoo xamante ne dañ ci lekk seen xaas surtout côté extérieur. dëgg la. waa allo. allo waaw yaay maa ngi lay nuyu. animatrice laa dama lay suivre toujours. Uh-huh, moo tax uh-huh. nag tey ma ne xaama dugg ma ne dafa bëri. Uh-huh. internet bi fi mu toll nii sëriñ si dafa bëri pëcc xoo. ku jug ne sëriñ laa. te ñu bëri internet bi tey jii ñu bëri ñu ngi ciy tourné dañuy lakk xaasu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk inter extérieur tey loolu yow lan nga ciy wax en tant que ñaankat. waaw pour nga dalalaat xelu sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaw di ñaanu. ndeysaan ndeysaan xam nga rek lay wax. nit ki dara xajul mhm. ci bàmmeel loolu laa yaakaar mhm. te nit ki defar ko mu leer ni la yow danga koy nax yow xam nga ni yaa ngi koy nax mhm. loolu moom sotti ca yaakaar naa li nit doonul taalibeem doo doon sëriñam dëgg la ca bu nu bu nu naxante nan waxante dëgg internet bi boo ko xoolee li naan lu waay def rek nit a nga lay toppandoo dañ ci sant yàlla nag waaye ki lay toppandoo bu fekkee mu ngi ciy jariñoo di ci jariñ nit loolu amul benn problème mhm. mais tey guy gi man dong maa ko génne woon toog ci sama guy du dugg ak génn léegi internet bi yépp guy la ñëpp guy noonu lan lay toppandoo mais jàngul du tari ku mhm. jàngul du mhm. tari waaye toog ci saal bu mel ne bu kii ma invité ngay wax dana neex <laughs> dafa neex man amul fenn foo xamante ni liggéey naa fa sol yére bu baax wala ma liggéey fa ci ci saal ah, d benn tenue bi rek gis benn yaay mm-hmm. comme que internet bi ñu bëgg nga xoolal leen bëri na tey ji mm-hmm. ñu gis dimanche bi nga xamante ne génn nañ ko mu am combat bu amoon bëri coow mm-hmm. mbër bi génne ne dañ koo xeex dafa wéet mu di Sa Thiès magam aussi war a bëri di Balla Gaye tey ji ñu bëri na na delloo avance tafaatin ndax dayoo tafaatin te Balla aussi bu ñu waxantee depuis combat yu mujj yi nekkatul Balla bi ko Boy Niang daani tey looy wax fan sa Balla Gaye pour dalal leen ak loo gis ci Balla Gaye man daal Balla li ma ci gis mooy kombaam da koy yàkkamti nam daan def attaqué mu jeex mënatu ko. koo wax li ma koy conseillé ci kombaam bi mooy na dal di xaar ki ko booleel waaye bu mu fekk ji bu fekk jee day daan. ok Balla bu fekk jee Tapha Tine da koy daan. waaw ñu bëri dañ ne gàllaaj yi mu yoroon yoratu ko dafay dafa toj le looy wax ci loolu. mu ni mu ni gàllaaj yi. ma ne ñu bëri dañ naan gàllaaj yi mu yoroon yoratu ko. déedéet du gàllaaj gaa toj de mhm. la ngay la nga la nga jàppoon ñaari at mhm. nee naa ko bàlla mhm. bul xëccati ak takk xale moo ko man mais boo demee ñaari at ñetti at dootoo takk kenn doo bul attaqué bi na ko bàyyi na xaar la mu digal rakam na ko attaqué na ko daan bu bëri bi yàgg fu mu ko def day daan d'accord mais bu ñu léegi ci wàllu mystique actuellement fi lamb ji moo ko adversaire am Tapha Tine kan moo si mhm. yow de dafa mel ne da ngaa a toog sama place. waaw waaw moom daal <laughs> déet déet déet. mel ne da ngaa bëgg a toog ma posé sama question moo ñëw ci chaise <laughs> bu baax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax laaj bi rafet na. tey sa xalaat nga joxe xam-xam nga joxe moom dugg ci émission yu mel noonu ndax foofu nga toog sama kër la. d'accord. waaye da ngay dugg ci internet bi rek da ngay gis li ma. li ma li ma wax ci internet bi. bu soobee yàlla. yow dinañ allah na njëkk dugg sama dikk ak Basirou Diomaye Faye bi mu amee ñeenti fan laal leen jël na réew mi wax ko Sénégal. incha allah loolu am na ca loolu am na. ca internet euh, TikTok boo ci duggee heure baag yépp la lay wanal. Mhm. kon xam ngeen ni yàgg naa jëf. ca li ma jëf senegal a ngi koy jël yàgg naa jàppale ay doomu aadama mm-hmm. ñëwuma pour man kese du ma neenum neen neenum neen mënut a yarum réew lu waay jàngul mënu koo xam maa ànd ak wa caake si siroo ginaar fandang kooku firindang wali kuuk firindang tangañ tangañ mutu fandang du am dara maam biram ko moom a yebal fii dafa mel da nga tàng de waaw yaram bi muy tàng jërëjëf jërëjëf balaa mu yaram yaramam di tàng jënam yi di ko fekk fii te man mm-hmm. attanu ma loolu wala oh, wala wala <laughs> jërëjëf euh, bu ngeen defee ne moom rek euh, mu daal di leen di seetal waaye numéro mi mu ngi noonu di 77 701. 97 64. waaw ñu jégalu nag yàgg ci ligne bi ndax dana mm-hmm. tax duñ mën a faram fàcce. waaw si si noonu la war a faram fàcce muy nur waa Tiwaawoon Pël. ndax maa ngi dëkk Tiwaawoon Pël ak Pix. Mm-hmm. kenkaar yi kaana rond-point ma nubbee képp koo xamante ni di nga may laajte foofu nga may laajte. man nag sama dëkk Ngay Jawaar la maa ngi nuy waa Ngay Jawaar yépp di nuyu Pa Ousmane. mi nga xam ne tram. waaleykum salaam. ma ngeen def. ñoo jàmm noo def. mën jàmm. ngi am jàmm. waaw ñun de borom guy gi ah? de moo ngi nii toog. asalaamaaleykum. a parce que ndax réseau bi. da ngay waaw. déplacé wu naa de. d'accord nga ne lan. waaw parce que moom man man di wax ak leen mm. damaa nekkoon ci yoon bu met waaw waaye bi ko sama yaay jotee. fexe bu rek ba gisaat ma. waaw ba ma nekkaat ci wetam. Mm-hmm. lijjanti ma samay téere ji ma manqué woon yëpp. waaw ba instant bii nii. Mm-hmm. maa ngi dem Espagne bi waaw. di ko sant di ko santee yàlla di ko santee moom moom tamit mm-hmm. ndax lépp moom moom la jërëjëf parce que sama yaay amul woon dara te mënoon na koo seetaan ndax amul lu mu ko fayee waaye bi mu koy jàppee te yàlla sax mm-hmm. boobu boobu ñun sama yaay jaaxle woon na trop ci doomam ji mm-hmm. waaw ñu ñu koy sant bu wér nag jërëjëf waaw di ñaan yàlla amin waaye jërëjëf amiin jërëjëf rafet na kooku dafa jëflanteeg yow. dafa jëflanteeg man xam naa ni ndax li ci ëpp man ci wàllu kayit laay ñaan moodu moodu yi. mooy ñi bëgg a tukki am problème kayit ñi mu kayit yëpp kayit bu mu mën a doon dañ koy arrangé ci ndomba gu weex googu ngay gis mooy mm. soldaar bi. Mm-hmm. moom xaru benn melo lañ koy ëwee. waaw ah, deretu muus bu ñuul lañ koy bindee. Mm-hmm. waaw comme euh, léegi comme dama ni damay leeral gàllaaj. Mm-hmm. amul lu ma la ci leeral arxuraan la mais deretu muus bu ñuul lañ koy bindee. buñ ko bindee deretu muus bu ñuul ba pare dañ koy ëw ci xaru benn melo mooy ndomba allo yooyu ngay gis kooku mooy lijjanti kayit fu mu mën a nekk. allo ak fu mu mën a nekk du kayit rek allo oui. oui ziar naa leen. dellu ziar bu wér. Eh, ana eh, borom guy gi. moo ngi nii di la dégg. vraiment kontaan naa ci li nga may def trop. jërëjëf. xam naa réseau bi. réseau bi moo neexul. réseau bi moo neexul. waaye bu gën ma mënoon a may tuuti rek waa réseau parce que bëgg naa yoo xam ne soxna si bëgg naa mu révéler ko tuuti mais ba léegi mënuñu ñu may. Mhm. Euh, bu fekkee mën nañu may tuuti rek ñu ñu dugg moom tuuti ci waxtaan euh, ñu soog a ibbaat ligne bi balaa ñuy tëj. Mhm. parce que bu dul loolu xam naa du ñu mën a waxtaan. kii dugg naa yow sànq ci làmb ji. Mhm. Euh, Balla Gaye da faral di gis ci ay bëre da ngay xool ci. bëre ma di xool ci bëre nag. jàmm ak jàmm yaram kayit lijjante yooyu waaye yàlla suñu borom damay wan ki nga xam ne mooy lii mooy jël ndam benn yoon laa mas a waxee ci ci ay diggante muy président yi. Mhm. boobu Sénégal rëb na. Mhm. ku nekk naan kii toog boobu xalaatuñ ci Bassirou Diomaye Faye. ma xëy suba gént ko xëy suba daal di def vidéo ni Bassirou Diomaye Faye jël na réewum Sénégal. Mhm. waaw bis boobu laa ci masee wax. waaye ay làmb yooyu doo ci wax. ay làmb moom mën naa wax kenn ku nekk ni boo yàkkamtee. ya Balla Gaye moom yàlla wan na ma yàkkamti làmbam na ko dalal bu ko dalalee am ndam bu yàkkamtee day ñàkk. mais yéen tafaatin yéen seen bokk séeréer yi est que du yéen a koy ngemb sax yéen. tafaatin waaw tafaatin moom wax dëgg yàlla gembu ma ko. Mhm. waaye tafaatin gembu ko waaye ki ma xam moo koy gemb. Hmm, d'accord hmm. Hmm. mais est kooku am na jinne yi nga yor tamit. mu amul jinne yi ma yore ndax man maa dul faral di euh, wax ci làmbu. waaw ndax Eumeu seen ñëw na sama kër ci waawoon pour fekk ma fa. mais mhm. comme man duma def làmb jàmm nit ki la mu jàng rek lay def mhm. ñi ngi may déglu wala ay mbokk a ngi may déglu mhm. euh, man guy gi laa yaroo jàngalul ma làmb ndax boobu xëy na làmb xewul waaye li ma jàngal daal mooy faj ci ki nga xam ne taxaw na ci wàllu doom dama ci faj ki nga xam ni taxaw na ci wàllu këyit dama koy faj ki nga xam ne mi ngi sëyam ca sëyam delluta na gannaaw dama koy faj mm. bayra ci wàllum njaay dama koy faj ki nga xam ne wërsëgam kar-kar kar na ko ba mënatul a fexe ba am dara lu mu yor mu di faraas jinne jël ko koy faj ki ànd ak jinne ba mu tàqalikook sago ki rab jënd yooyu daal allo allo oui salaamaaleykum ay salaam bàyyi nañ ci jàmm ngi sant bu baax alhamdulilah da nga bëggoon ñu la mm, non non mère bi laa bëggoon dégg mu ngi lay dégg allo Ndeye Jojo. Naam. Abdou Mbaye. noo def Abdou. <laughs> waaw sant yaa ngi jàmm. maa ngi lay siyaare di nuyu de passage. ñu ngi leen baax baax. waa Pikine yëpp <laughs> alhamdulilah. waa Pikine yëpp ñu ngi sant rek. waaw rek alors. ah ñun rek def suñu seere rek. waaw waaw. ndaxte bi ñu ñëw jëw métti woon na lool. ndeysaan. ndax ay commerçant lan woon mbir mi jaxasoo ci ñun trop. wax nga dëgg. wax dëgg yàlla moom lépp lu ñu mën a sotti na. yàlla suñu borom. te amuñu benn jafe-jafe. yàlla na ko yàlla la te lépp te lépp la ci yow ci yow sa jëmm jooju la jaare ah yéen a baax <laughs> a baax ndax bi ma duggee talu maa nuyu Sénégal. tey maa mhm. nuyu extérieur talu maa mhm. nuyu képp koo xam ni euh, jëflante na ak yéen. dëgg la maa ngi nekk fële ca Pikine. dëgg la muy ku ma baax muy sama doom ci man sax. moo xam ne seet seet rek moo nu boole. waaw dëgg waaye fa tabaarkàlla muy ku ma bàyyi xel. dëgg la noonu nag laa bëgg samay jinne bàyyi ko xel. dëgg la gis nga sëñ bi sëñ Abdou Mbaye mii. Mm-hmm. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal njabootam. amiin yàlla ñaanal waa Touba ak mu dëkk di ñaanal fii mu dëkk ci Ndakaaru. amin deful dara lu moom kooku moom sama doom la ki dugg nii. wala dëgg la lii moo nu boole. waaye sama doom la. maa ngi bu baax. bu baax la nga ñaanal di ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm toogee rek. daal di wéere tey jël xam-xam bi gën a leer ba ci Xaadim. waaw yàlla baax na waaw waaw jërëjëf Adi. lu waaye jàngul doo ko man ca ku jàngul du tari jàng rek. dëgg la coow li li muy bari bari ñàkk a jàng la. dëgg la. nit loo bëggul bëgg a doon sëriñam da nga koy tarbiyu. ak a wér. voilà. waaw waaw jërëjëf nag nuyu naa leen. yéen waa ka jërëjëf jërëjëf Adi. kontaan naa bu baax ci dugg bi. waa ka jërëjëf ñoo ko bokk ñoo ko bokk jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Abdou ñu koy jaajëfal bu baax a baax. mais bëggoon naa aussi nga euh, ñëwal ñu si bu fekkee milieu showbiz bi. Hmm. ñu bëri dañuy toog fii.